ci dëkk bu sel bi nga xamne modi tubal mahrusa dëkk bi nga xamne serigne bi ko sancal bopam defé na bari waana bayit yo xamne bu koy tuddu damit day delu ci mom muy maskan yi nangam dëkk bo xamne bam koy sant ci wéet la ko sant ñëk fe defal bopam mbaarum ngeer ak dóor dóorum ngeer saxal fa bopam it muy dëkk bo xamne it lam ci doon sakku ci boromam di ñaan lépp boromam defal nako ak nam ko bëgge won lolé it bamuy bokku ci doon ñaan wajal bi xaqi wajhikal karim tilka duyur mubarakatan masumatan yow yàlla na nga def sama dëkk yi mu nekk lu barkeel waaye nekk lu ñu aar ba ñaanal ci sax ñi nga xam ne dañuy jóge ca biti di jël ay xéewal wala ay liggéey wala jàppale ñu fay liggéey tabal ko ci biir dëkkam bi di Touba muy dëkk boo xam ne bu mu fonkoon la bu mu bëggoon la lool dëkk boo xam ne it lépp da ko ca laa jëme nam bëggoon mu mel ni it mënoon ko ñaan boroomam moom mi nga xam ne mooy borom dëkk bi bokk na ci nattu yi ko yàlla doon nattu mooy génn dëkkam bi di Touba loola defe naa ku jàng xasidaam yi dañ ca fekk mu mu wax ne sama dëkk yi ràpp na sama njaboot ya tàggoo nañ te la ma ko yóbbu mooy tagg yonent bi alayhi salaatu salaam te tagg yonent bi mooy liggéey doon def loolu mu nekk lu diis nekk lu métti ñaan yam doon ñaan boroomam it yàlla jàppandalal ko ci dëkk ba fu mas a nekkit dëkkam bii di Touba rek lay lay lay tudd di ca sant boroomam waxtu wu ne lahu la daa Touba taaba allahi axtafa bihi l axtaba loolu yëpp day jëm ci dëkk ba waaye du yore yàlla yaa karimi junna anil laani wa du yural janna def ko mu di ab pakk ci képp koo xam ne muy seytaane nga xam ne du fi mën a yàq waaye it mu nekk àjjana ci képp koo xam ne nii dafay nekk te nekk fa la nga xam ne mooy ndigal te sax ca te di ko bëgg makkante ni fii du yuur yaa ilahi bila kaddin wali kunta fii tuuba bila darar قد كنت لي في ديوري يا إلهي مع عصمتني من عند الأزمان والغرر لو كنت دوينا قال خل يا الله جابنا لكو جدك بيتوبة نكال كو جلب لهم بغت فعل كو جلب لهم ده يلور وايد آر كو جلب لهم نمو آه، نوني جابنا عند الأزمان والغرر أكو وارو نوني جابنا أكو وارو نك دوينا سكتي واحد موي آه، بارنا نيوتك بتوبة غير نيتوبة مل ñak leen jublu ñak leen neex bari na ko fi dëkk it ba min japp ko ak waru duggal ko te Serigne Moussa Ka dafa waxoon ne bari na koy dem di dëkki Touba te xàmmeewul zahir sa ak baatin ba ngir ko fa jaamu yàlla ful sa mayya waaye ku fa mooy yàlla it ful sa moyya kon bari na ko fi nekk taxa xamu ko bari na ko fi ñëw it te xamu ko sëñ Mouhamadou Lamine Gaye daan wax ne li ma dégg Serigne Touba wax ko ci Touba ak li ma déggut ak li ma gis Serigne Touba bindu ko ci Touba ak li ma gisul xanaa sàgganteeg doomu aadama ne kon ku fa teg sa tànk benn yoon mën nga ko faat bañ a tegaat te la nga bëgg nga am ko Serigne Cheikh Thioro ba muy tagg sëñ bi it andi woon na ci dëkk bi sëñ Cheikh Thioro sëñ Mbàkke euh, Mor Anta Serigne wala si man ataa yawman li maskanihi xayral masakini tuuba min dadin xaraja kon dëkk la boo xam ne yàllaa ko tànnal Serigne bi jaay ko ko ci njëg gu boo xam ne nattoo ki coono la may ko ko ci coobare boppam mayaat ko ko ci tànnu dëkk bi muy dëkkam bi du Tuuba dëkk boo xam ne fekkul suufus kenn mu dëkk ko fekkul yëfi kenn mu dëkk ko ba mu ca dëkkee àll la bu ne ndaan fàll ay bukki ak i ndem ndeng ment ak i njaay àll ko daan wër wet ku nekk mu wéetal fi boppam di fi saxal di fi liggéeyal yàlla waxtu wu nekk ak bëggami di dëkk bi di Tuuba kon ki fi war a ñëw di fi dëkk war naa xam lan mooy sarti dëkk bi ndax réew moo jëm da nga fexe ba méngoo seen sarti dëkk ca la ñuy laaj lu mën a doon kër goo bëgg a dugg it xam sarti kër ga da ca borom bëgg lu mën a doon ndokk nag li borom di bëgg ci dëkk bi moom kenn waxalu ko ko ginnaawam waaye moom ci boppam moo ko waxal boppam bindal ko boppam waxal boppam ni mu bëgg ab dëkkam mel ni ni mu bëgg dëkk bi ku fi nekk nga nekkee ne noono loolu sëriñ bi ci boppam moo ko bindal boppam loolu mi ngi ci biir ay mbindam na nga ma defal it dëkk bi mu nekk pakk an haatikin marit haatik mooy ki xotti war may diine waaye sàlli minal fu jaari na nga ci génn ku di ab kàccoor aku saay-saay ku fa mën a nekk te nekki woo fa na war a mel lu bis yàgg-yàgg bis dana ñëw nga xam ne li nga fa nekkee wërta nekk Serigne Touba waxuma la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye da koo bëgg ba bëgg dëkkam bëgg njabootam kon ku bëgg Serigne Touba yi te bëgg Serigne Touba gi wér ci ngay bëgg sëñ bi bëgg dëkkam bëggu njabootam gis nga Serigne bi ci biir waxam waxtu wu ne da koy côté gis nga ba muy wax ci Madinatu Munawwara dana daarun matama yazuruha zairun bihula yasam ye dër lal xaq wa diin waaye ku koy siyaare ngir ak jub la kon du ñàkk ku fa dem ngir leneen waaye kon bari na ku nekk Tuuba man naam njariñul boppam loolu sahida ko fi bàyyi wala làq boppam a ko fi bàyyi wala rawale boppam a ko fi bàyyi kooka nag jëmmam lam cay làq ka rawale du bokk la na ci xolam ba bu dara yëngoo nam koy feeñale dangay xam ne kii li ne ci biir xol bi bokkut ak li muy dund kon sagu boppam wala dundu boppam moo ko fi bàyyi Tuuba am na ci mag ñoo xam ne dawuñu fi sori daal am na ci mag ñoo xam ne nii ba tey ji xam naa ci biir dëkk bi kër yoo xam ne seeni kër duñ am lal nga xam ne tey kilifa lañ ami barke jege jumaa ji lool waaye seeni néeg duñ ami lal ngir lan wormaale dëkk bi ak jege dëkk bi ak mag màggale dëkk bi kon loolu war ma la ci war képp ku fi nekk ko nekk ci dëkk bi it war am ay tegin war a xam li sëriñ bi bëgg gàcce la kersa la ci noonu sëriñ bi di bëgg dara ñu di ko bañ a def ba yegg ci ñeneen di nu wax ne sax li ngeen di bëgg du mën a am loolu gàcce la ci kum bàyyi ko ci yow ak kum jaare ci yow ak kum sababo ci yow kon war ma la ñu war a jox dëkk bi ba ca topp mooy wax jii fi jàll barki démb te commissaire Thioman wax commissaire bu fekkee ne lam wax moy lam jàng xam ko yoon permettre ko may ko ko na xam ne ay réalité it waxtu wu nekk wala balu ci bépp bi rek ndax yàlla ci suñu borom subhaanahu wa taala moo jëkk a wàcceel wax ne moo man lam yaxkum bi ma anzalallah ku ku attewoo ci li yàlla wàccee li yàlla wàccee ku attewoo ci leneen lu dul moom ñett yem leen limal yëpp yooyu nit ñaa ngi koy gis ci teg seen bët te tolérance nga cay am ca leneen lu mën a doon ba tax tey jii doxinu dëkk bi mën a méngoo ci meneen mbir mu mën a doon mu di nag bu fekkee ne tey yi tere yi Serigne Touba bëggul ci dëkkam bi te njabootam gi tàmbale ko Cheikh Abdoul Ahad boo ko xoolee yi ci ëpp lu yoon bañ a nga ca tere nañ ca dorog ñaata nit lañ tëj ci kaso bi ngir dorog tere nañ ca na yàmba ñaata lañ tere jàpp nit ngir yàmba tere nañ ca leneen tere nañ ca leneen yeneen yi ci des dëkk bi yëllu wut am pox ndax Serigne Touba da ko bañ ba noppi teree ko te di ko dàq euh, kon nag commissaire loolu bu fekkee ne wax la joo xam ne yoon tëral na ko yow xamal nga se bopp réalité dëkk bi bu wóor ndax aw nit ñëw na fi ba tàyyi ci dëkk bi war fee nekk di gan ñu tegtaloo ci yow ngir nga wax leen lan moom lañ war a nekkee ci dëkk bi nan lañ ko war kon loola bokk ci dëkk bi xam dëkk bi tax loola war a mën nekk Touba du benn dëkk benn dëkk du Touba ngir ki moom Touba du kenn kenn du moom dëkk bi nag njabootam gi ñoo ko moom bari na ñoo xam ne seen dëkki maam yi bu ñu doon jaay suuf si tey jii ñeenti téeméer kenn du ko jënd te tey am na fi ñu fi tedd te teraanga fi bew nag ak yëg sa bopp dana gaar nit léegi-léegi ci doomu aadama jóge cib dëkk yor mbaam baa mu jóge cib dëkk yor kallu baa néeg ba muy jëkk fanaan am jànk lay doon baa mu jël rido rido ba mu cay takk mu doon buntam du ko sutur la woo daa mu wan nekk tey dem ba xéewal ko fépp mu bët njabootu seen tubaab teg leen morom ñooñu léegi-léegi dégg ku ne maa ngi sa ginnaaw yow na nga xam ne nekk gañ nekk sa ginnaaw amalu la benn njariñ lu tax mooy bi nga fi ñëw yëgunu ko te boo fiy jóge duñ ko yëg te na nga bàyyi xelit ne ñu la maa ngi sa ginnaaw saa yàlla dogaloon te nga jóge fi ka fay ñëwaat nekk ku bees la ñuy xaritoog moom ci yàq sa der lañ koy tàmbalee mooy diw dafa yëruwutoo yàgg naa ko koo wax xamoon naa lii dana ko dal kon nag na nga bàyyi xel waxi nit ñi ak seen melokaan wu te xam li la fi indi ta sa pas-pas sa diggante ak Serigne Touba leer boo fi nekkee ngir Serigne Touba bu la Serigne Touba di fay kenn du ko yëg boo fi nekkee ngir leneen lay xew feneen lay bàyyi ndax loola feeñal ca ba ku ne porox tey ku ngankoon ci bëñam lu mu bëgg a wax mënu koo wax wax ji tax tey mu jaarale ko ci mel bi gënu ko ndey yonent bi gënu ko ko mu am walaa bal gu tolli ko neex wax moom xol bu tàng ci lay ndax mës sa bëgg Tuuba mës sa bëgg ñun Tuuba waaye Sëriñ Tuuba nee na moon sama njaboot gii ku leen defal njëkk xaw ma ñu mën a fay xaw ma mënuñoo fay boo leen di fayal ko yëg leen defu safaan xaw ma ñu mën a fayu xaw ma ñu mën mënuñoo fayu xaw ma ñu mën a baale xaw ma baale waaye bu ma leen di fayul duñ duñ duñ ko yëg kon loolu lu mat a bàyyi xel te ñaari kuréel yi fi nekkoon ci dëkk bi muy Safinatul Amaan ka ko jiite sëñ Tuubaa jur way juró muy soxna meen loo soxna meen ngaab sëñ Xamsatu suñu ko kon kuy yàq nit ci dëkk bi ñuy woyee ndigalu sëriñ bi lañ a xamee loolu mooy kenn ku ci nekk la kilifa gum doon lam doon ci Tuubaa moom la ci doon te teewuñu takk seen digg ngi leen di saaga ñi ngi leen di xas ku leen wër te yaba ngi leen di yàpp te jàppewul ko lu may liggéey sëriñ Tuubaa loolu war na caa déggee ndigalu lu sëriñ Tuubaa bëgg ñàkk bakkani taali bi ba mu jeex takk moo gën a yomb ci ñoom ndigalu Serigne Touba loolee bañ am kon a ginnaaw ndaw nga ne ci yoon fa seen liggéey diggante marko beeg dékk bi bu ci dugg ndax ndigalu sëriñ Touba kat raay la akuk saxaar lu ca jaar lu dul wagaw wala pono ba cey jaar danga nga mokk rum te loolu mooy ndigalu sëriñ bi ndigalu sëriñ bi kenn du ko foyee kenn du ko sàggan ñeneen ña cay wax nag ku ne jël sa kàddu bopp song Touba dañoo war a atte ñi dañoo war a jàpp ñi dañoo a nangam ñi ñooñu seeni wax bu doon compte ñu def la seeni morom fa nga nekkoon lañ la fa génnee te mënoo faa dellu war na la doy dàq la dàq yoo xam ne faraat say morom te loolu sax mu sotti barki dem nit nee na fi woon dañoo waroon di jëti autoraay euh, autoroute bi anamu tey fu mu mujjee moom de dëkkati ko nañ fa newoon te téewut autoroute bi fi ne néew Tuubaa di fi ne sëñ Tuubaa képp la woon ak nasaraan di wéet ana Merlin ana Leclerc ana Jean-Louis Moutet ana góor noonu ana góor noonu ana góor noonu mbooleem ku mas a jóg ci Sëriñ Tuubaa ngir dal ci kawam torox nga ba àdduna teg ci bët ndax am na nil baaqi la si lay sa yamut wa kullu man qasada durri yamut te waxoon na benn bis ñenn ci mag ñi ñuy liggéey mu ne dem leen ngeen yëtal ma ab ñu dem andil ko ab pont bu ndaw mu ne ab jëlu man laaw pont bu mag ñu ñëw moo foogal boppam suuf si ba mu defaf jal mu jël pont ba tekki muy jëlu man bés ko ba mu mu ne ni ma def sama jëlu man laa def sama diine ji sama lislaam ji du yàqu te kenn mu ko yàq ba àjjana boo gisee ma di leen fonk leen dëkk ba di Touba nag saa borom dane ma woon danaa simmi sa yére yi may liggéey la rob ko Touba ku la fa fekk ma yolal ko sa bopp bi kenn mënu ko yàq ci genn mën a doon noo xool suñu bopp noonu wara a seet suñu bopp bu ñu yeggee ba bu sëñ bi waxee ñu ne daa waroon na bu sëñ bi noppee ñu ne daa waroon na bu sëñ bi ne kenn ñu ne noonu sëñ bi noo war a xool suñu bopp li sëñ bi bëgg nag day am ba faw te kenn mënta tee am kon ka ne caw yoon di doxalu yoonam na doxalu yoonam loolu la yoon may ndax ab dëkk ab circulation da cay am lijjanti ko war ko police doxalee leen am gendarmerie ab kàccoor day takki gànnaay jóge ci àll ba jëm ci dëkk gendarmerie ak police loolu seen taxawaay la war na ca waaye ñoom ci seen bopp ay taalibe xam nañ li Serigne Touba bind li mu laaj ci worma li Serigne Touba dox li mu laaj ci worma kon war na sax ku fi ñëw te xamoo yooyu réalité ñu jàngal ko tërbiyee la wax la ko ba xam ne Touba bokkut ak fépp ndax pas taxaw nag naan la maa ngi sa ginnaaw lu tax mata moytu li ko mooy bari nag ñoo xam ne gisoo leen ci écran rek nga leen di gis la ñuy wax bokkut ak la ne ci war a garder wu nit nag bu demee ban ko garder dara jëru ko ku di séen di daw bu demee bay nëbbatu dara séenu ko kon bul déglu ñooy wax ca la ñuy wax lu mën a doon xool li sëñ bi bëgg nga nekk ci te jaar ci te xam ne ndigalu sëñ bi rek mooy wëy ba faw ba faw ba faw ña jiite liggéey yooyee taalibe Serigne Touba lañ njabootu Serigne Touba lañ dëkk baa ngi noonu ku fi ne nekke fa la la war a da nga fi dund ba màggat daagu tabbi ajan waaye wëyu Touba waa nga ne juddoo fa bi doon mag mësaam te du am ba faw taxaw maskani salli minal fujaari yàlla nu yàlla defal tawfiq defal ndimbal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu